Assalamualaikum. Ousmane Sonko bàyyil di ma tëkku doo yàlla danga ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa référence yonent bi daawul tëkk kenn yonent bi da daan jàngale ak di xamle waaye daawul tëkku kenn danga dem ba Casamance di cas di campagne boole di ma gaaruwaale ak di ma tëkku ndax li nga wax ñépp xam nañ ni man maa wax da nga ni nag li ma wax bu ma ci delluwaatee nga tëj ma kaso préparé cellule bi may dem parce que maa ngi ciy delluwaat nii lii laa wax Sénégal dama ni leen Casamance la fa xew ba nguur gi ñëwee ba léegi dama cee am njàqare ñetti yëf moo tax ma am ci njàqare bu njëkk bi mooy waaye fupp ya fa nekk dañoo yëkkati drapeau Casamance drapeau rébellion bi te dégguma président de la république ci dégguma Ousmane Sonko yëy ci yàb bi dégguma kenn ku bokk ci nguur gi ko ci yëy yàb bi loolu mosul am Sénégal beneen bi ci topp mu am jigéenu tubaab bu dëkkul ci réew mi bind livre di wax ni Casamance dafa war a am indépendance dégguma Ousmane Sonko yëy ci yàb bi dégguma keneen ku bokk ci nguur gi yëy ci yàb bi il a man ma def émission wax ni livre bi kenn waru koo def dédicace bi Sénégal te ndaw si fixé woon na datu dédicace Sénégal ba ñëpp xam ko kenn waxu ci dara il a ma dénoncé ko pour que ñu ni ñu mujj annuler dédicace ba daal di dootul amati ba pare daal di tere pour ñu jaay livre bi Sénégal ma ne loolu njàqare la ci man ndax livre bu mel noonu kenn mosoo xalaat bind ko ci suufu Macky Sall ab Ablaye waat beneen bi ci topp ma ni général Kandé nga xam ni moom moo duma way fipp yi ba indiwaat jàmm ci Casamance nguur gi ñëw ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko Inde affecté ko ma ne loolu njàqare la ci man mais bu fekkee nag Ousmane Sonko loolu tax nga ni man da nga war a tëj kaso demal ci Google wala YouTube nga bind affectation générale kande nga xool intellectuel Sénégal yi li ñu ci wax xam man dama ne damaa am njàqare rek waaye demal Google wala YouTube nga def affectation générale Kandé nga xool intellectuel maanaam boo may tëj tey di nga tëj au moins deux cent wala trois cent intellectuels sénégalais yoo xam ne la ñu wax man jàll na bu baax li ma wax mais sa sa tëkku yi dafay wax ne rek singali bi nga ma singali tey leer na nàññ ni bi nga may yóbboo deux jours garde à ñi lay waxal naan du yow tey leer na nàññ ni danga ma singli te li nga bëgg taxaw ci temm mooy dugal ma kaso nee dinaa dem nëpp di nga ma tëj rëbës ba ma nëpp loolu nga wax su Ousmane Sonko respecté justice Sénégal ngir yàlla yow premier ministre yaay tëj nit ñi ba ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy nëb rëbës respecté justice Sénégal justice Sénégal ay magistrat yu am yu am valeur ñoo fa nekk ay nit ñu baax ñoo xam ne école bi nga génne lañ génn xam nga ëppale woo leen daax nga taxaw yow en tant que premier ministre naan yaay dama ku ko def da ngay dem prison mel ni yaay tëj nit ñi te loolu mooy liggéey bi nga xam ne justice Sénégal moo ko def respecté justice Sénégal ngir yàlla ba pare Ousmane Sonko affaire Kandé bi bu fa amee kenn kuñ ci war a topp yow ndax da wah wax lu garaaw a garaaw da nga ni li tax ñu affecté Kandé ya ko wax de dafa am rapport bo fi fekk boo xam ne la nga wax ni moo nekk te rapport ba sax man sañu ma koo waxaat parce que li nga wax ni moo te loolu moo pour kaaraange Sénégal xam nga da nga ni man li wax li la ci metti mooy day laal kaat li wax man non seulement laalal kaaraange Sénégal day défendre armée bi waaye yow li nga wax loolu moo laal kaaraange Sénégal wah li nga wax ni moo nekk te rapport ba man du ko ko mais bu faites ni kenn lañ war top topp ci yëf yi mooy yow parce que rapport bobu au minimum secret défense moko moko protège y a yow nga ñëw la ca nekk nga ni ko tell ci voilà donc euh, euh, jërëjëf.